الله بالمصطفى سندي tey nag dañu ñëwoon euh, pour présenter leen euh, euh, salle bi nga xamante ni si mooy département néphro bi salle bi nga xamante ni si fi la ñu teg appareil d'hémodialyse yi yi nga xamante ni si ça fait un moment fii ñu gis ak partenariat bi ñu ci am ak l'État du Sénégal ci ndimbalu si ñu am sa ak sëñ taxa ñu dimbali ñu ba nga xamante ni si am nañ ay machines yoo xamante ni si teg nañ ko fi pour population Touba ak li nga xamante ni si moo ko wër nest euh, machine pas machine d'hémodialyse nag ku nekk xam na li ko waral ku wax dialyse wax feebaru roño n'est-ce pas nga gis euh, benn problème la boo xamante ni si maanaam yàgg na Sénégal euh, moo mën naa ni soo moo sonal ñëpp daanaka donc ba tax na ci ci loolu ci la suñu am sa ñoo xamante ni si macha allah moom wàllu wér-gu-yaram da koo ñor ànd ceeg mbaylaat mi nga xamante ni si moom moom moom structure bi ñu amoon xalaatu taxawal fi lu mel ni ci si mu taxaa ak état bi ba lii tey jii taxaw ñuy ñaan yàlla suñu borom ñoo xam dara tëw ko dimbali ji ba nga xamante ni si liñ ciy sàkku ci ci salle bi ak malade yi nga xamante ni si ñoo fi fas yéene ñëw faj ñu am ci lu seen jot voilà salle bi nag mu ngi nii n'est-ce am na ay machine n'est-ce pas yaa ngi nii comme ni ngeen ko gisee y a de machines yoo xamante ni si ñu ngi fii euh, gis ngeen lal yi nga xamante ni si ñoom lay àndal en tout cas tout le matériel bi nga xamante ni si moom mooy euh, li mu war a àndal lépp mu ngi fii nest pas mun naa ni ay machine u génération yi sax mën naa ni pratiquement euh, voilà nga gis ne daanaka daal dara dara manqué wul dara manqué wul euh, voilà donc lépp rek pour répondre euh, besoin bi nga xamante ni si population bi am nañ ko ci lu jëm ci wàllu Euh, hémo hémodialyse nga xamante ne si ñi nga xamante ni si ñoom ñoo am feebaru feebaru roño ba yegg yenn stade yi booy soxla lu jëm ci wàllu dialyse n'est-ce pas lépp lu nga xamante ni si soxla nañ ko ci domaine boobu doon mën naa ni pratiquement mu ngi fi. bon dialyse nag <clears throat> buñ ko waxee wax roño euh, feebaru roño comme ni ñu ko waxee sànq dafa doon loo xamante ni si son problème de de santé publique euh, nga gis ne sonoon na askan wi loolu loolu loolu. dialyse nag euh, nekkul feebaru roño yëpp ñoom ñooy nécessité jalis amaana nit ki balaa mu fay yegg day fekk mu egg benn stade stade bu avancé ñu wax stade terminal sax euh, roño nag la nga xamante ni si ma appareil jalis la muy liggéey mooy la la roño ba waroon liggéey roño liggéeyam mooy lan mooy segg deret bi nga xamante ni si mooy daw ci yaram bi ba lépp lu ciy déchet mu mën koo éliminer ak euh, gaanuwaay bi Euh, dafa am feebar yoo nga xamante ni si nag dana dem ba jàpp roño bi ay maladie chronique des fois am lu ci mel ni diabète lu ci mel ni tension lu ci mel ni yenn produit néphrotoxiques yi euh, ak yeneen ak yeneen feebar yoo nga xamante ni si dina dem ba tax roño ba liggéeyam maanaam dem dootu ko mën n'est-ce pas qui fait que dina malade bi au fur et à mesure muy dem euh, état rein yi di dégradé wu ba nga xamante ni si dina dem ba dootul liggéey ba mu doon mu war a def dootu ko mën a assurer lolu nak bu démé ba am ci lañuy jël malade bi xool bu féké dem nañ ba garab yoo nga xamante ni la daan jël mënatu ci dara ci lañ koy door mëna installer n'est-ce pas lolu nak ay paramètres la yo xamante ci si li ci walu clinique la loy examiner gis ko ci malade bi lenn li walu biologie la ay analyse ak ay radio bi yooy def hmm, euh, pour mëna xol ba xam malade bi dafa yegg ci stade dialyse am waaw wala déet su fa yeggé tamit comme liñ ko waxé rek machine yi euh li rein ba doon def lépp mën naa ni pratiquement moom la moom mooy mooy liggéeyam nest pas mooy segg deret bi xool la nga xamante ni si moo cay déchet parce que deret aussi la ay daw au-delà ndox meeg yooyu am na ay ferñeent ak leneen ak leneen ak leneen yoo nga xamante am na xorom suukar ak lépp la xamante ni si moom mooy moom mooy moom mooy daw n'est-ce pas euh, ci yaram bi nga xamante ni si organisme bi da koy soxla loolu nag euh, bu demee ba roño bi la ci ëpp ci yaram bi mënatu kaa éliminer ci la ñuy jël malaat bi indi ko ci lu mel nii n'est-ce pas euh, installer ko brancher ko pour muy mën subir ay séances d'hémodialyse séances yi a dem ñaar ba séances par semaine. en fait nit pour ñu ko, démarrer ay séances il faut que d'abord moi am insuffisance rénale insuffisance rénale comme de dem assurer fonction bi nga la pour n'est-ce pas donc insuffisance rénale euh, nekul ne nit ay stade la aussi ay stade la mën na dem stade 1 ba stade 4 un stade terminal n'est-ce pas et puis il faut nit ki dem ba yegg stade bobu mën ni pratiquement mu door bu fekk insuffisance rénale chronique la mu door meuna bénéficier aux séances d'hémodialyse des fois it y a genre li wax insuffisance rénale aiguë yo xamante ni si nit ki meun nañ ko defal quelques séances d'hémodialyse mu le temps mu rétablir n'est-ce pas mes critères c'est les critères cliniques et biologiques biologiques et radiologiques mën naa pratiquement biologie bi bon xam naa ni yooyu sax pour dugg ci détails dina xaw a kii wante ñu xam ne rek euh, malade bi bu ñëwee am na ay analyses yoo xamante ni si moom la ñu koy demandé su ko defee ñun dinañ xool am ay calcul yu nga xamante ni si dinañ ko def xool tamit cliniquement malade bi ndax am mën supporter parce que rein bi bu fonctionné wul nit ki di nga gis muy neewee kanam tànk yi di neewi kanam bi dem di fat am jafé jafé nooyee ak yoyep dem des fois mën nako dem ba dugal ko ci comment n'est-ce pas ni wax comment urémique lolou yep ay critères cliniques la yo xamanteni ni si tamit day day day day mën naa ay ay yu ñuy yu ñuy yu ñuy bàyyi xel la machine bi moy machine bi nga xamanteni ni si moom assurer dialyse bi n'est-ce pas euh, machine bi comme niñ ko gisee am nay branchement nga gis écran bi nii ci kaw euh, ci biir euh, am na yeneen jumtukaay yi nga xamante ni si ñu ngi ci biir malade bi lu ñuy def duñ koy placer li ñuy wax euh, cathéter benn kii la boo xamante ni si moom mooy jël deret bi luy permettre ñu jël deret bi ci malaat bi ak delloowaat deret bi ci malade bi bu day am bam benn genre pompe ba nga xamante ni si mooy xëcc deret bi dugul ko ci biir am na ci benn genre euh, benn beneen machine boo xamante ni si am na liquide bu muy bu muy permettre boo xamante ni si da ci day am solo ci kii bi euh, bu muy sécrété am leneen loo xamante ni si lu ñuy wax euh, dialiseur bi nga xam ne ci biir machine bi loolu nag mooy assurer principal rôle rôle machine bi su ko seggee ba pare ñu jëlaat deret boobu delluwaat ko ci malade bi lii nag ay benn écran la boo xamante ni si mooy na mooy affiché gyroscope la mooy affiché constante malade bi lu ci mel ni tension beeg yooyu gis nga lii Euh, tensiomètre la hmm? rythme cardiaque beeg yooyu yëpp da ngay gis day day affiché wu parce que malade bi aussi buñ koy defal dialyse dañ koy dañ koy surveiller dañ koy surveiller n'est-ce pas c'est des machine la boo xamante ni si en tout cas bu sophistiqué la lépp lu nga xamante ni si rein bi doon na koy def moom da koy da koy mën a assurer malheureusement nag euh, bon comme que gis nga ni mu mel du lo xamanteni si da ngay obligé nga déplacer wu ñëw pour ñu défal la donc deux à trois séances par jour ça dépend ci sévérité qui bi donc moy mën permettre nga mën survivre en tout cas comme comme tout le monde n'est-ce pas bien mener une vie en tout cas meilleure quoi waaw ci teunk dal vraiment voilà c'est ça donc machine bi salle bi mu ngi nii ah salle ba ngi ni machine yaa ngi nii macha ñuy xaar na ba léegi nag démarré guñ fonctionnement bi euh, am ay quelques formalités administratives yoo xamante ni si. mu naa ne pratiquement moom moo des wante ñuy jàpp ne ci diir bu rek incha allah dinañ démarré e te li comme ñu ko waxee rek wàllu social boobu tax a jóg n' est ce pas donte privé la doon na loo xamante ni si jàpp nañ ne du doon loo xamante ni si en tout cas dina def tuuba ñëpp attan ko n' est ce pas ñi nga xamante ni si ñooy nekk di rang ci liste d' yu hôpitaux yi mën ñëw fii def seen i seen i séance démo jali sans problème n' est ce pas et puis ku fi ñëw jàpp e nañ ne incha allah di nga am satisfaction totale incha allah yàlla baax na di leen gërëm bu baax nag vraiment ci ci visite bi yéen waa anti macha allah